koo xam ne danga am gént mën nga dugg si page bi da nga tapé li nga gént da nga gis euh, réponse bu loolu nag ñi nekk bitim réew bokkuñ ci incha allah waxoon nañ leen am na abonnement am bu leen kereel ñooñu mën nañ ko continuer ci abonnement bi euh, koo xam ne yaa bëgg ñu firil la par téléphone mën ngaa woote daanaka li yëpp ci li ngeen may laaj di fay def naa ci vidéo yi ba pare mën ngeen am seen réponse saa ngeen fay saa ngeen sonn ndax li ëpp ci question yi daanaka mooy li ma wax ci vidéo yi ñu góorgóorlu foofu dinañu dimbale bu baax tey ñëw ci gént nag nag am na vidéo bu ci ñëwoon dañ ci dellusiwaat ndax dafa laaj ay yaatal yu gën a bari moo tax ñu ñëwaat euh, nag dafa am solo ci gént yi doomu aadama di gént lool dafa bari message gént yoo xam ne dafay ñëw ci nag ci doomu adama bi moo tax may wax ne lu am solo la ci gént li ngay njëkk jàpp mooy nag bu feebaree baaxul bu loofee baaxul bu deewee baaxul loolu ngay njëkk jàpp ci principe bi nag ci li ëpp ci li muy baax mooy mu nekk nag nag bu duuf nag bu mag duuf couleur nag léeg-léeg dafay joué dinaa ci ñëw benn benn euh, et cetera wuute bi boroom xam-xam yi di wuute ci nag léeg-léeg dinaa ci ñëw awalan li ngay njëkk a jàpp danañ jëkke ci xale bu góor boo xam ne amoo soxna danga gént gis nag bu duuf nag wu mag nag wu ngande lan lay firi day firi yàlla mën na laa dimbale ci sa dund danga ci am soxna su am xaalis soxna su am teraanga loolu lay firi ci li boroom xam-xam yi wax bu dee da gént am ku la may soow walla meew boo xam ne daf ne lii meewu nag la wala soow mi man la soowu nag la wala nga gént di naan soowu nag wala meewu nag ci góor gu amagul soxna dafay firi soxna su tedd ci jikko su baax su yiw su sell ci sa dund yàlla mën na la koo dimbalee loolu lay fii jigéen nga amagoo jëkkër nga gént nag bu mag nag bu duuf lan lay firi ci gént ci jigéen bu amagul jëkkër day firi jëkkër ci at moom a ngay dugg xam nga nag li ëpp dalay wax dalay xibaar ci sana bi ngay dugg maam at mi ngay ñëw at mii di ñëw wala at yi di ñëw mën na man defe naa ñu ñëpp jàpp jàpp jàng nañu uh, xisatu Euh, Yuusuf alayhi salaam ak euh, gént bi nga xam ne moom la buur ba géntoon nag fu mu loofee fu mu tuutee baaxul day firi at mu bekkoor ci at yi ngay dund ñaar ya fu mu duufee dana firi at mu la amal njëriñ ci yow moo tax jigéen bu amagul jëkkër gént nag bu duuf day firi jëkkër ci at moom a ngay dugg baax na ci gént euh, soowum nag wala meewu nag ci jigéen bu amul jëkkër naan ko wala ñu may la ko ci jigéen bu amagul jëkkër day firi góor goo xam ne dina nekk góor gu tedd ci wàllu jikko ci wàllu diine maanaam jëkkër boo xam ne dina nekk kilifa ci wàllu diine baax na loolu lay firi ci gént euh, ki ma ci teg mooy góor goo xam ne am nga soxna gént nag bu duuf danaa ñëw ci yeneen détails yi ci deuxième partie bi nag bu duuf bu mag day firi xaalis bu bari bu ànd ak barke incha allah foo génte war nag gént war nag daanaka ñëpp ñoo ko bokk waaye bu dee kii dana firi mucc ci tolof tolof ak i xat-xat léeg dana firi ci ñeneen ñi palaasu liggéeyukaay bu kawee wala yëkkatiku ci daraja mbaa yokkute baax na ci gént danga gént jënd aw nag ci góor gu mën a doon walla kum mën a doon day firi daraja du kawe ci wàllu liggéey maanaam ndombal tànk lu kawe mbaa yokkute lool ci sa liggéey bi nga lekk dem ca marché ba wala ca daral nga jënd nag ci ku mën a doon loolu lay firi danga gént euh, euh, lekk yàpp nag day firi alal ju daggan ci góor gu am soxna jaay aw nag day firi tukki bu sori te yàgg danga gént am nag jaay ko ci biir gént ci góor day firi tukki bu sori lool te yàgg lool jigéen gu nekk ci néegu sëy nag bu duuf day firi ëmb benn wala mu firi stabilité ci sa néegu sëy ëmb benn wala stabilité ci sa néegu sëy euh, soowum nag ci jigéen gu nekk ci néegu sëy day firi palaasu liggéeyukaay bu baax nag dafa am yu baax am yu baaxul yi may tudd nii ci nag baaxul yi ma ciy teg nii ñeneen yi maa ngi ñëw ci yéen teg nag foo géntee mu mu mbëkk la wala sax nga dem di rat nag mu bañ nag bi da ñëw di ko rat nag bi bañ lànk ne doo ko ratte ci biir gént ci ko am soxna day firi soxna su doy waar soxna soo xam ne yàqkat la jigéen juy sëy day firi jigéen joo xam ne yàqukat la keneen ku mën a doon day dugg ci sëy boo xam ne ka ngay sëyal gënul jigéen gént rattam nag mu bañ ratt ko mu nangu mu kan mu bañ wala boog jigéen joo xam ne yaa ngi ci nekk ci néegu sëy wala góor gu nekk ci néegu sëy gént ratt nag mu të day firi wor ci sa boroom kër walla ci sa soxna nag bu la mbëkkee day firi tolof tolof ki xat-xat ci say jege ñaale lor boo xam day jóge ci ñi la ñi la jege baaxul fees nag nag ñu rendi ko ba di ko fees di ko fees nii baaxul day firi musiba joo xam day jóge ci ñi la jege gënul ci gént gént rendi nag euh, li tax mu wax lii dama gis ci bindkat yi ku wax ni baaxul day firi ñàkk ku cher ci sa famille walla ku la jege euh, am na koo xam ne bind na lool ci kii waaye am na ñeneen lu bind leneen ñi bind leneen dinaa ci ñëw fii nag léeg-léeg ngay gis ku ne la damaa gént soow nag ñen la saraxel soow dama gént aw nag rend ko ñen la reyal nag déedéet noonu kenn du ko fii dee gént euh, nag boo xam ne da gis mu béjjën yi gudd lool ba jéggi dayoo béjjën yi gudd ci nag ba ëpp baaxul day fii jëkkër wala soxna soo xam ne ku doy waar la jigéen bu amagul jëkkër nag bu loo bu bu loof lool lool day firi jëkkër waaye jëkkër ju yéex lool day firi yéex a sëy ci gàttal nag boo gént mu rafet lool rawatina mu nekk nag bu yam day firi jëkkër yoo xam dana ànd ak xéewal ak wërsëg nag bu weex couleur bu weex ci jigéen ju amul jëkkër walla góor gu amagul soxna sax day firi labat gu gaaw goo xam ne soxna dana sëy dana ci topp ci ñoom ñaar euh, léeg-léeg mu firi mu firi palaasu liggéeyukaay bu kay waaye alaa kulli xaal baax nag ci gént nag bu la euh, mat raar na dana firi feebar gënul ci gént nag boo gént mu dee baaxul day firi tolof-tolof ak ci xat-xat ci ñëpp waaye rawatina ci jigéen ju nekk ci néegu sëy da gént di dagg te yàpp nag ñu ko dagg nii ci jigéen bu amagul jëkkër ñeneen ñi mën ngeen dem ci vidéo yi ma def ci yàpp mais bu dee jigéen bu amul jëkkër baaxul day fi jëw bu ñaaw ci la jege baaxul jigéen ji ëmb gént ren di nag wala lekk ci yàpp ba day firi mucc ci coono am doog ak i xat-xat kon waxoon naa la am na ko wax ne day ren di nag day firi ñàkk ko cher ceew am na keneen ko bind lii ci jigéen ji nekk ci néegu sëy kon woro a am na aw nag nga gi ko ci place bu yaatu ñax mi nekk fa lépp ci jigéen ju nekk ci néegu ci ëmb boog day firi day firi doom bu góor nag bu am couleur bu weex ci jigéen ci ëmb day firi doom bu góor kazalik couleur bu jaune ci jigéen ji ëmb day firi doom jigéen nag wu loof lool feebar ci jigéen ji ëmb baaxul day firi xat-xat ak tolof tolof yu tar ci sa ëmb ak ci sa am doom baaxul bokk na ci gént yi gën a ragal jigéen ji doon sëy ba tas wala sa borom kër fee faatu nga gént gis nag wu dee baaxul day firi musiba ju tar nag wu rafet duuf lool ci ñoom ñaar ku mu mën doon day firi changement ci dundin maanaam jógee fi nga nekk ci tolluwaay ci xat-xat dem fu gën a baax fu gën a yaatu baax na ci gént àlakuli xale ren di nag ci jigéen ji doon sëy ba tas wala sa borom kër faatu day firi xaalis newoon naa la am na ko wax baaxul ñii lii lañ ci wax rendi ko santiné yaa ngi yor paaka di ko rend ci jigéen ju nekk ci ju doon sëy ba tas day fii jeneen beneen borom kër bu baax euh, jigéen buy sëy nag bu rafet duuf day firi stabilité sociale walla ëmb nga gént géttu nag ci jigéen juy sëy lan lay firi day firi stabilité ak dal ci yow nag wu dee baaxul day firi tolof tolof yi xat-xat mbaa bor yu lay lor rendi ko day firi mucc ci njàqare ki xat-xat rendi nag ci kenn laa gis baaxul mooy jigéen ju amagul jëkkër ñeneen ñi ma gis ci borom xam-xam yépp loolu lañu wax kenn kook la baaxul ñu ci des baax na ci ñoom góor am soxna nga gént aw nag woo xam ne yaa ko moom yaa moom nag wi day firi daraja ju kawe ci liggéey war nag loof lool lool ku mën a doon day fii ñàkk ku tar banque gu métti ren nag ci góor gu am soxna day firi mucc ci tolof tolof yi xat-xat gént jiital lu gétt walla jiital aw nag day firi koom-koom wala njëlbeenu koom njëlbeenu avancement ci góor baax na ci gént alaa kulli xaalin bunt baa ngi noonu ñu ngi leen di ñaan génn abonné partagé wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.